exactement 9h passé de 30 euh, minutes ñu ngi ànd ak yéen ci seen journal des faits divers xalaas ci euh, talaata bu euh, ci semaine bi ñu nekk voilà donc di leen gërëm bu baax ci gunge bi ak seen fidélité ci programme yu rajo Futur Média nuy waat sama gars yi salaamaaleykum Mamadou Mohamed. waaleykum salaam. ziarati naa la Kalz maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax a baax. dellu am mbégte rek àndaat ak yow. jërëjëf fii la ah. mbégte mi ëppee ah, yàlla yàlla na jàmm yàgg. waaw. Eh, secret secret wu yeewu suba bi war nga ma ko jox de. Ah, tàmm la rek. ah. bu la ci kenn difficile na ci man. bu la ah rek bu ci kenn amul secret. teel a yeew. waaw amul tàmm la miin ko rek kenn du ko miin. waaw rek moom kay rek. macha allah da <laughs> nga olof yi nee nañu. wut teraanga bàyyee ci gën a sedd. est ne ca tooya. xam nga mbéyum ak ni mu méttee. waaw ñu ne la maanaam wut teraanga looloo ci gën a noppale. xam nga xam ne dara yomb. dara yomb maa ngi nuyu également passe partout bu baax a baax. jërëjëf naka naa de. le revenant revenu. passe waaye la baax kàlla di la nuyu di nuyu Ndiaye di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm ñi ci réew mi ñi ci bitim réew. macha allah Mohamed naka réew mi ñu ngi nii rek may ma nuyu partenaires yi ñu ci xalaas ndax xam nga ñoom dañ ci am taxawaay nekk ndax yu baax yi nga xamante ne ñoo ngi koy indi réew mi bu ma ko waxee xel day dem ci établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère yi nga xam ne mmh. fu nawet jotee xel yëpp dem ci ñoom ndax euh, ni ñu euh, noppalee nit ñi ci ay yo ci mmh. jamonoy nawet noppal ko nit ñi ci ay weñ noppal ko nit ñi ci ay mbuut mbuut kon ak seen gam bi di vite fait vite am cuuraay bant buy dàq yoo ba noppi nag di la bàyyee xet gu neex ñu indi pompe boo xamante ne ji foo ko piis weñ du fa jege yoo du fa jege mbóot noonu dañu indi beneen euh, produit vite fait boo xamante ne ji réew mi yépp ko soxla woon mu di crème euh, crème épilatoire crème épilatoire vite fait disponible ci marché yépp crème la bu noppalee bu garanti bu wóor efficace teg si ci képp koo xamante ne euh, maanaam da nga bëgg a def épilation crème épilatoire vite fait bi ñëw na ngir gunge leen vite fait établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère kon nañu it beneen saabu boo xamante ne ji king la tudd mu di savon king aloe vera wala savon king anti acné ngir ñi am ay picc kanam muy euh, cuuraay bant bi dàq yoo vite fait muy pompe bi muy frotté vit fait bi muy euh, savon king wala crème épilatoire bu vite fait bu ngeen ci bëggee jokkoo leen ak établissement waa kër Serigne Touba et frère numéro téléphone bi 77 la 555 11 11 77 555 11 11 wala 76 577 06 63 76 577 06 63 beneen partenaire ci xalaas Optique Vision Plus Sénégal boobu ba léegi ñi ngi woon diwaanu Saint-Louis ak boutique bu ñu doon tëjji askan wi ñëw wuy si leen ci journée consultation médicale gratuite yi ñu doon def démb ba léegi nag ngi fële ca Louga dañu fay ubbi boutique Optic Vision Plus Sénégal dañu fay defit ay journée consultation médicale gratuite ñoom waa Optic Vision Plus Sénégal quartier Santhiaba Sud la nekk di leen wax ne lunettes yi Optic Vision Plus Sénégal di jaay bu ngeen fa demee di ngeen ko am ci njëg yu yomb ndax dañoo nekk ci promotion mooy serite bi ñu yóbbaaleel waa Louga ku ci bëgg ay leeral wooteel ci 78 586 75 75 78 586 75 75 partenaire ci moo di marque téléphone bu Sénégal yépp bëgg ko ndax dañ cee gis njariñ mi yoon di gaamu téléphone boo xamante ne ji am na Android am na téléphone simple mais également am na li nga xamante ne ji moo di tablette mi yoon ci téléphone mi yoon Android yu baax yi bokk na ci Q8 plus bi nga xamante ji mille kese lay jar yomb lool batterie bu mën a yàgg lay àndal di jël ñaari carte SIM également mémoire bu yaatu boo xam ne toll na ci huit giga ak deux giga de RAM ni ma ko waxee vingt cinq mille dong lay jar ñu am service après vente boo xam ne boo yor boo ko jëndee mm. euh, koy toppal mais également garantie la ko un an di douze mois mooy téléphone marque mi yoon Kals. Euh, macha allah mi yoon moom gis na ne réew mi bëgg nañ. Eh, dañ koo jël jëluñu ko ah, ndànk sax. jël nañ ko puis service après vente boobu it am na njëriñ. waaw parce que xam naa ni boo yàqulee boo fa demee ñu faj. mais ñun loolu mooy suñu problème mën ngaa jënd matériel waaye da nga naan ndax su ma ci defee xaalis bii. Mhm. bu yàqoon nu may def man naa xëy xëy yàqu léegi nag boo amee ay techniciens xam ne dañuy dañu am service après vente bu bu mucc ayib. Mhm. da gën a encourager gën la euh, rassurer pour nga dugg ci matériel. nga dugg ci loolu dafa baax moom ñi jaay ñëpp ci war a taxaw. macha allah loolu am na solo. Mhm. Euh, maa ngi lay laaj léegi nag réew mi nga dugg ci ci ci ci ci ci. partenaire yi waaw waaw nag réew mi. réew maa ngi nii rek kal moo la laajee nag réew mi parce que bu ma duggee ci commentaire yi euh, boo joxee sa xalaat ci réew mi gars yi gars yi bég ci moo tax man la naka réew mi. man mi waaw. Ah, dama lay déglu di man maay premier auditeur u xalaas. waaw moo taxit naka réew mi rek. ah réew maa ngi nii ñoo ngi sant rek. ma la laajee naka réew mi nga cof ko rek du ma neex garaawul bàyyi ma dem ci paas. <laughs> <laughs> li xale yi naan yaay borom réew mi. kuy borom réew mi Njaay rek la wax de. ah d'accord Njaay yaay borom réew bi <laughs> kon baax na aja paas ñu dem. Euh, Njaay. waaw Njaay euh, balaa ñu dem ci bi euh, sa benn mbokk njaayeen mhm. moom moo yore moo yore état civil bu hôpital principal. Mhm. dafa jógee démb vendredi du mois ci dem hôpital Dantec. Mhm. caabi ya mu yoroon lu mat war fukki caabi. yëpp da ko war a dal ci taxi. bu fekkee taximan daal mi ngi mi ngi dégg mhm. mu yóbbul ko ko ca hôpital principal mu laajte Ibrahima Ndiaye wala mu indil ñu ko fi RFM. RFM Ndiaye ñu kon Ousseynou Ousseynou Ndiaye. Ousseynou Ndiaye la ah. encore man maa xam nga Ousseynou la. comme boobu xaw a kii. déet moom kay caabi yi mu réer fàtte ko ci taxi. na ko borom taxi bi dimbale rek. waaw ah. ah, ndax kuy liggéey état civil moom sa dara wata réer. waaw waaw nga dëgg de. ah, ah waaw nga dëgg de. fu ñu jëm. Ndiaye dañuy dañuy des biir biir forêt classée bu mbaaw ah suñu histoire ba. waaw boobu tey lañ koy tëj. waaw waaw. ba ñu euh, liggéey ba ci biir faram xam nga ñi nga xamante ne heure bi di leen di fekk di nelaw. <laughs> waaw nga leen di rafraîchir la mémoire. dimbali leen. xam nga Kals histoire bi xalaas bi lan la. waaw dafa am benn femme boo xamante ne ji day liggéey. Mm-hmm. di cadre fa mu nekk. Mm-hmm. di ko yaru. Mm-hmm. di ko yiw. di di intellectuel teg ci. am benn surga maanaam surga ni ma la ko mën a waxee mooy benn booy bu doon liggéey ci moom ba jógee fa. woo ko na ko dafa sama benn paa bu ma lay boor a booleel pour mu ñaanal la. Mhm. femme bi bañ waa ji insister confiance daw comme da ko rus ak yooyu. nga mhm. xamee wu koy caaxaan. Mhm. mu nangu waa ji boole ko ak paa bi paa bi nag da ko ne biñona la nekk. ne ko dafay ñëw parce que dafa yu ma gis ci yow yoo xamante ne ji dafa soxla ñaan. femme bi biñona sori. muy xool ndax dina demam du dem paa bi ne ko léegi jaratul ngay ñëw am na sama benn doom bu ma lay booleel. lu mu la wax maa ko wax li ma mën ci yow mën na ko ci yow. la woo. am ko wow booy femme bi ne ko man maay doomu paa bi nii ak nii ak nii la demee léegi da ngay ñëw Gàmbi mm. fekk si ma. ci ndigalu paa bi waaw. Mm-hmm. femme bi bañ ba sonn waa ji convaincre ko femme bi jugee Sénégal dem Gàmbi ba mu demee Gàmbi fu ne dugal nañ ko fa ay àllu Gàmbi beeg. Mm. sang nañu ko ca àll ba parce que dañ ne ko dañoo gis ci yow xaalis boo xamante ne ji il faut ñu ñaanal la pour que nga doon borom alal. Mm. wan nañ ko nee na ay jinne ci àll Gàmbi ba. jox nañ ko fa jaaro hmm. ba femme bi jugee Gambie ñëwaat Sénégal gars yi toppaat ko dem ba invité ko ca forêt classée bu mbaaw ndax dafa am ay bagages yu ko fay defar. Hmm. ba ñu dugg ca forêt ba nag fa lañ jëm démb. tàccu dagan déglu ah. tàccu dagan déedéet tàccu studio dagan. waaw ah, da ngaa xamul ki nga amal ki nga amal affaire après naa la ko wax nañ déglu. non Ndiaye bien laa ñu <laughs> ma daal di toog ak lépp ak suuf mu daal di ma maam baa ngi ana banaana bi ma la laajoon ak man ko jëloon nga ko sànq mu ne waaw mi ngi ci mbuus mi daal di jël nee mooy seen ñaan xam bi ma laajoon daf ma laajoon téléphone ma indaa ma ne ana téléphone man ko mi ngi nii mu jël téléphone ma boole ko ak offrande ba tegaale ko nga jënd bi naa ko jënd wax na ma ko ma jënd téléphone def ci bu bees te bu mu am benn comprendre te nga dugal ci compte orange money ak compte Wave en quelque sorte ma comprendre mais c'est que téléphone boo xam ne enregistré nañ ko ba pare ci xam ne moom bu boobaa yooyu la mu du ca nekk xam nga li ma la bëggoo man après réflexion noonu laa ko xalaatee mun ma ana tam man ko tam mu daal di jël téléphone bi tegaale ko daay ma ñu dem toog na le ñu daal di wane ginnaaw toog na le ñu toogee ba mu yàgg mu ne ma léegi da ngay wax alhamdulilah ala kulli haal alhamdulilah ala kulli haal alhamdulilah rabbil alamin da ngay juróom ñaari alhamdulilah rabbil alamin léegi nag ba pare ngay ñaan sa aaju ngay ñaan sa aaju di ñaan sa aaju ne ba mu yàgg mu ne acca ñu delluwaat ñu delluwaat bu ñu delloo fekkat saako yaa ngi gisoon ca ca Gàmbi sac yu di def mais cette fois-ci dakkal baa nga mais am na beneen genre col comme colu tukulóor yooyu di am ci mbir ci mbir yi ci côté yi col yaa ngi enfoncé ci biir ba xam ne kenn xamul lu nekk ci saako yi ci kaw daal benn bi mu daal di junne bi ci nekk jox ko ko jëlal junne bi maire bi jëlal junne bi nga jënd ci loolu lekk yow kese yaa koy lekk bu ci keneen lekk yow kese yaa lekk kii kii bi li nga ciy togg moom ngay añee tey ak yëkkatil junne bi nga jox ko mu nekk junne bu bees tàq mu yëkkati jox ma ni ma tey sa alal yëpp a ngi nii nag def dolli naa la ci juróom-ñaari kilo or léegi nag xam nga lan moo ci des dangay boo xamante ne danga dugal ci biir valise ba. dina boo xam ne danga koy dugal ci biir nekk nag suñu asaka yéene suñu suñu asaka ndax xaalis suñu ci ñun ak seen alal léegi nag il faut yéen seen jiitu ci valise bi ñetti millions yi fekk kayit yële kii jox. ci biir ak ñaan yam ca def bu ko defee nag ñun ñu mën a xam yoon bu ñuy jaar ba mën wàccee si alal gi nag sa alal yëpp dugg ci biir valise bu ko defee nag moom dana la jàppale nga compter sa xaalis yëpp takk ko ko bëgg denc daa ko fa denc fu la bëgg fu la neex dugal moo xam banque la moo xam weef la moo xam dama ana téléphone bi ma la waxoon nga def ci weef ana mu man nga indi naa ko jox naa ko kii mu ngi foofu teg léegi nag bu ko defee lu la neex nga dugal fu la neex nga dugal sa xaalis léegi nag bu loolu yëpp weesoo léegi na 3 millions yi laa nga taxaw ci tax man na ko waa maam 3 millions yi moom fan fu ma koy jëlee man di ma amee woon jox naa la mënuma mane 3 millions yi da nga koy wut ndax man laajuma la bët laajuma la daggiti nopp laajuma la baaraam te loolu la fi nit ñi laaj pour jox pour nga am alal fii dëkk bi ku fi bëgg am alal dana laaj sa tànk wala ñu laaj sa baaraam wala ñu laaj sa bët man laajuma la ci benn dama dama laa laaj 3 millions rek laa laaj ma ne ko am naa kër kay laaj doon naa la fan yële ne ndax am nga kër nga ne ma am nga ñaari kër man la waaw léegi nag sa kër sa këyitu kër mënoo ko joxe garanti foo ko joxe garanti ñu jox la 3 millions nga indi ko 3 millions dafay dara alal du faj dee gàcce lay faj 3 millions du dara boo indee 3 millions yi tey tey tey tey tey ñu jox la sa këyitu kër léegi nag moom du dem. danga koy bàyyi fii mu toog ndax moom mooy garder alal ji ba pare def def toog di la defal ay ñaan yow kay nee ma maam ñaanal ma ma am 3 millions ba ma nee maam ñaanal ma ma am 3 millions ma ñaanal la léegi foo taxaw nga dem ñu jox la 3 millions nga dem def ko ci valise bu ko defee moom ma soo koy bàyyi mu ñëw fekk si la ñun bu guddee ñu daal di ñëw indil la alal ji sa kër. te moom mi ngi wax waaye ba léegi gisuloo ko maa ngi def bëccëg la. bëccëg la léegi nag ci laa ko cofal bët gis ko mu sol vax bu boos ficha dafa jonkan jeeg bu jigéen la jeeg bu jigéen du xale bu sew sew mais jeeg bu jigéen la parce que am na am na suuf comprendre mais ki ma gis xaw nit la xaw ma rab la dëgg yàlla mais daal jigéen laa gis léegi nag moom bu mu gisee ne maa ngi xaw def nii sama visière bi maa ngi gis ci la mbuug sama kool sama kanam waa ji hmm. donc mu daan léegi acci tàll sa loxo ma ñaanal la ma tàll loxo ñaan acci dafa defal sa kanam tuwal sa kanam te nga jóg dem boo ci taxawee sàlla boo ci taxawee léegi da am 3 millions léegi tegal nga na ma jóg génn ma ne yow si waat léegi fii ndax yaa garde alal ji yaa garde alal ji ba mu am 3 millions bu ko déposé fa mu koy déposé nag nga soogee mën a jóge fii rek mu yëkkati jooy man fii nan lay def bu jóge fii ah? man fii nan lay def bu jóge fii Adja jàppalem nga indi 3 millions jàppalem nga indi 3 millions man fii fii nan lay def fii xoolal fii àll kese man du lu ma lekk lu ma naan te maa ngi leneen naa toog fii <laughs> man ka man yaa wax jooy wala man maa wax jooy. <laughs> bind. waa ji mi ngi jooyee parce que nee na jënd ji moo ne ko yow doo génn àll bi tànk ndaw si ñëwul ko saraxu ne ko boo indiwul 3 millions yi jënd ji dama bàyyi léegi man ndaw si jën ki mu doon dégganteel mu ne mooy jënd ji kooku fu mu nekk. jaay kooku nit jaay cooy la. mais lu tax gisu ko fa laa bëggoon jëm xam nga benn instant gis na ko. waaw ba ñu xam ne mu ngi koy xool ñu ñu muuraat kanam. ñu muuraat ko waaw effectivement def nañ ko ko deux fois yooyu nag Ndiaye mooy système yi gars yi def par exemple dañu la jëlee guddi indi la fii ci géej gi ah, am na benn xale bu jigéen bu xees bu bu nuuru ci géej gi. nga foog ni jinne la waaw mu génn naan laaj Mouhamed Ndiaye 3 millions jox la benn jaaro. dañ lay man li ma bëggoon xam mooy si je comprends bien cest à lii dañ koy planifier bien avant ñuy attaquer seen. waaw seen bi femme bi moo yëglu. waaw. mais am nay victimes yoo xamante ne ji am na genn kilifa gu jigéen gu mag ci réew mi. Mm-hmm. li ko ñii def ci corniche ndakaaru bii du ko nettali mukk hmm? buñ tëjee micro yi dinaa la wax kan mais comme moom munu cee wax. waaw te lim ci ñàkk xaalis bu dul jeex la te comme moom munu jeex ah buñ ci wax. Ndiaye. lii nii. Euh, kon ñu ngi ñu ngi ciy rey dund lu lu gën a métti. mais ngi ciy rey ñu bari. aussi benn précision Ndiaye. ñi ciy dugg ñi ciy dugg. Mhm. chaque fois du maanaam duur xaalis moo leen ci dugal. maanaam début bi. du bëgg ay bëgg xaalis moo tax nga ciy dugg. sa personne de confiance moo la boo boole nit pour mu ñaanal la. buñ la xasee ba ci ñaan yooyu nag lañ lay sangee. voilà buñ la sangee wala ñu takk loola jaaro wala ñu ñaanal la. Mm-hmm. moom yàqu nga jekku nañ la. maanaam xiir nañ la ci seen bopp. merci beaucoup léegi kay mooy li lay muccal mooy fexe bañ a am benn contact ak ñoom. waaw boo ko amee rek c'est parti. gars yi ñu ngi toj dëkk bi de. Ndiaye. Hmm. xam nga bi bi bi ndaw si waxee ba bi ñu waroon dem gendarmerie yooyu noonu. Hmm. ci lañ ci am benn cas boo xam ne góor la. Hmm. mais kooku dañ ko yóbbu Sénégal ba. boole kook benn femme ñu ne moom mooy. rawat bi ba ma waaw boo génnee frontière Gambie. waaw boole kook benn femme. kooku naa indi suba ne ko femme bi mooy rawat bi dañu koy may comme ça jabar nga am jabaru jinne bu mu tëdd femme bi ci àll bi. Hmm? beneen kaa maa la wax lii kooku sax heureusement ba ki nga xam ne moom moo nekkoon ki ko boole waa ji jàpp nañ ko mi ngi fii kaso. ki ko bu maanaam kii nekk diggante bi. voilà waaye léegi kii nu mu mujj dafa dem wuti 3 millions yóbbul ko jinne ji wala. ba mu génn ci àll ba nag. waaw bañ ko laaj këram waaw ma bañ ko laajee. kayitu këram. ñu ko laaj. déggoo mu naan ko xanaa amoo kër da nga tayal sa kayitu kër. wala nga dem laaji 3 millions foo dem dinañ la jox maa la ñaanal. waaw. léegi nag daa génn xam naa di wuti. 3 millions ci la xel bi ñëwaat na. pourtant nag noonu mu ko waxee. Mhm. man gis naa ko xam ne noonu lañ ko def. am na yuñ lay waxloo wala am na lu ñuy def ci yow. Mhm. koo jàkkaarloo loo ko laaj mu jox la kon kii yàlla dimbali na ko de. léeg-léeg nit ñëw di la leb. Hmm? di la leb doo ko mën a gàntu. Hmm? amaana sax li koy lebal yoroo ko mais doo ko mën a gàntu ñëwul ci ak loxoy neen de. danga koy dem wuti jox ko. lenn du ak mbaax ñàkk a tey la. wallaay dëgg la de ak sa sago. am non xam nga leble. Hmm. voilà loo am moo ci baax waaye dem lebi pour lebal nit. waaw ah, ak mbaax yeggul foofu mbir nga ci biir loolu <laughs> mbaax yeggul foofu mbaax yeggul foofu léegi nu mujjee. voilà ba mu génnee kanam ba mu génnee ci àll ba man maa wax jooy wala yow yaa wax jooy man mii ñu ñu ñu laaj sama un million trois cent cinquante ne woon ma dañ may delloo sama sama xaalis gisuma loolu tourné di ma laaj si trois millions ak di ma laaj sama garanti que kan moo war a jooy yow wala man waaye man dama ci xale lii boo génnee man dama lay yóbbu ci buntu bi man dellu si waat bu ma jógee fii laay toog te man sama jabar sama doom maa leen bàyyi foofu ah léegi demal nga lijjanti mais demal lijjanti trois millions nga indi ko tax ñu bàyyi ma ma jóge fii ah xam nga fii àll kese la fii dara nekk fii xam nga fii dara nekk fii ma ne ko waa baax na man boobu man j'étais tétanisée xamatuma ci kaw laa ne xamatuma ci suuf laa ne parce que j'étais j'étais bouleversée yàlla xam na ko j'étais bouleversée mais bon comme un automate dox naa ba dox di dox di dox ba ci biti waaye jama doon xool ma génne nii la def di ma xool borom kàttan bi borom kàttan bi ma fekk fa yeneen scooter yu gaare ñoom ñëpp ku dafa wax ni kii mais am na mais je ne sais ñoom ni na tam ay jaaykatu mango ak yiy jaay dàkk rek ñu ngi toog foofu noonu ci angle ñoom ñëpp ma woo chauffeur bi ne ko ñëwal nekk ma man ko expliqué ma ma da ngeen dañu xama woon fi may yóbbu moo tax léegi nag il fallait que oto benn oto moo ñu jël bon bref noonu la ak mënoon waxe virage oto bi tëm déjà sama plaque oto sax ñu ko doon gis sax yooyu yëpp tiit naa ci. Hmm. parce que mën nañu relever sa plaque oto te bon doo xam. waaw waaw sincèrement doo xam bon comme ça donc ma daal di dellu si agsi ba sama kër daal di toog ma agsee daal di woo paa bi paa bi jëlu ma téléphone parce que wa moom la veille avant bi may laaj amin tuuti waat na ci alxuraan billahi wallahi tallahi lii boo ko joxee ba pare rek ñu indil la sa alal man ko ba tey papa ban ba tey dama lay waxaat man alal joo xam ne laajuma ko woowu ma ko waaye dafa génn ci yow man dama ñàkk ki ñaan bu ma doon beneen nit duma la wax mais dafa génn ci yow yow dafa am lu yàlla def ci yow ma woo paa bi bu ma xasee ba dugg sama kër toog tudd yàlla dama jaaxle jaxasoo ma daal di gaawante si changé yëge ak yëpp toog man ko jotuma ko jotuma ko ba ay dix huit heures trente ba dix neuf heures paa bi woo ma sama doom ne ko papa sama doom waxal ci kaw dégguma ne ko pap parce que ni ngi may jëm di transcender sama état d'âme fan laa toll xam nga ñoom dañuy fàtte ni fii ñun lu mu bon bon jàng la mën a analyser ni ngi leen mën a noonu nga leen di analyser yow tamit mu daatee ni ma sama doom damaa bëgg nga wax ma lan moo nekk ci yow ma ne ko dara papa dama jaaxle rek surtout dama jaaxle parce que man keroog Ibrahima bi mu fi jógee démb la ma ne sànq suba la ma ne ngoon da jot sa xaalis comme nee ngeen yéen xaalis bi dama ko war jot kon xaalis bi mun ma da nga xaalis boo joxee lii da nga jot lii ngeen wax loolu ma ne waaw ma ne ko ñu dikkati ngeen yóbbuti ma ci àll bi di ma laaj trois millions man papa man dama jaaxle te Pape man boo gisee man may wax ak yow nii ak di ak yow nii ci ak teggin am ci yow confiance tax ndax am na loo xamante ne wan nga ma ko ak kóllëre laay jéem a téye boobu ba léegi waaye man yi may dugal man xaw ma lu mu doon man xamatuma lu mu doon te man lii bés bu ko sama borom gër yëgoon wala sama sama ay njaboot yëg mais man man danaa daañ ma yedd daañ man yow lan moo la dugal ci lii waaye man boobu ba léegi bu ma waxee ngeen ma bu ko wax kenn bu ko wax kenn bu ko wax kenn ba kañ man lii mënuma ko bañ ñàkk bokk sama borom kër mun ma déedéet sama doom déglu ma wax ak man d'un yoo sama baar bu dëgër mel na du baatu nax naxal ba mu doon waxee ak man wala sama doom déglu ma déglu ma waxal alhamdulilah rabbil alamin ma ne ko ma wax damaa bëgg nga tuub li nga wax ndax gis nga xawxaan yi waruñu mer ma ne ko dëgg la tuub naa ko dama dugg dans son jeu mm-hmm. léegi sama damaa bëgg nga wax ma papa ñaanal ma ci boo ma ci ñaanalee bu ma la ñaanalee rawaan bi sa maam ñaanal la da koy danga koy am waxal papa sa kayitu kër anamoo génne ko nga joxe ko garanti ma ne ko papa sama kayitu kër mënuma ko joxe garanti parce que dafa nekk impo sama kër ba ma ko jëndee ba pare kër gi dafa nekk impôt ñu ngi koy toppatoo pour mu nekk titre foncier donc voie boobu mu nekk mënuma fa te yàlla xam na ni loolu am sama kayitu kër yi ci man. Hmm. mais man maa ko defee noonu parce que aussi tamit dama doxul ci loolu. Hmm. du ma toll fii mag mu toll na man teg si ba fii nga di ma dugal ci yéen compte sursaut de lucidité bi dellu si na ci man. ma daal di ko papa mu waa man ko nekkul ci man mu ne ma nekkul te mënoo ci jot man ne ko nekkul ci man te sama oto bii mu waa man ko xalaatuma ko jaay parce que sama jëkkër moom ko jëndal. gis nga Ndiaye lu gën a doy waa si wax ji mooy. Hmm. am na si ñoo xam ne ñu ngi koy dégg mais gëmuñu ko. lii nii waaw. man de li ma ci jàngat mooy ndaw si au moins suñu borom dimbali na ko ba xel mi dellu si. xam nga li bi. Mhm. mooy lii ñi ko dund Sénégal mën naa ne fekkente ne cent pour cent la ñu. soixante dix jaar nañ ci yii nii. Mhm. mais le problème mooy am nañu kersa wax ko wala ñàkk nañ ci loo xam seen xel sax dem na xam nga amoon na fi koo xam ne doyen la woon xam nga yaa ngi fàttaliku wala. Mhm. même situation. am ji ku nekkoon ci bërëb bu mag bu ñuy liggéey fii ci réew mi plus de 65 millions ñu yóbbul ko ko. mais du ñu du ñemee taxaw tey di ko wax. di ko wax effectivement. léegi nag buñ ko waxul ñi toog naa na lii am na amul ay film laa dugg na fi génn na fële duñ ko mën a gëm. man de su ma su ma nekkoon mbokk ndaw si li ma koy digal mooy. Hmm. na wàññi maslaa. si. donc elle a trop négocié. oui oui am na ñoo xam nag noonu lañ leen yare ñoom. mais hmm. réew mi mooy réew moo xam ne boo fi yàggee maslaa ñu maasale la. Hmm. day wàññi maslaa. Hmm. maslaa gi mi ngi ci yow def nañ la liñ lay def ba sa xel dellu si. nit woo la. ba yegg ak yow ci di la gëdd nga koy bàyyi muy wax. loolu mooy maslaa gi. moom nañu bañ yegg foofu. voilà gis nga ki jar a jox cër. mooy ki yayoo cër. it ak ñaan sax rek. waaw ñaan kese. ay ki ki jar a jox ciir mooy ki yayoo cër. mais uh-huh. koo xamante ne ji moom yayewul ab cër parce que deful lu nit ku baax di def ak lu mu doon mag mag ci yow lu mu la féete féete mag. bu ko ko jox jaruta maslaa. Ah, waaw dëgg la na wàññi maslaa bi. Mm-hmm. yàllaa ko suturaal nag. Mm-hmm. parce que lii. Mm-hmm. lu ne mënoon na ci moom naa lay wax Ndiaye xam nga forêt bu mbaaw boobu noonu même même fee nit mënu leen a booleeg jinne mënut a nekk nañ def loolu seen bopp. <laughs> jinne jinne jëflante. merci beaucoup jinne moo lay taamul boppam. wala jinne ñëw boole la ak jinne merci beaucoup <laughs> nit mënu la boole ak jinne ki lay boolee ki jinne moo la gën a yittiloo ay jinne moo la gën a bëgg jinne <laughs> lay wax dëgg de ñi ami jinne duñ leen boole kenn ñoom la ñuy saab nañu moytu loolu dëgg la de Sénégal gu bari cool yi bu fi xanaa jinne bu doon wàcc dina moytu feneen fu dul Sénégal gu bari coow gi wallaay ndax dinañ ko feeñal te te gis nga Njaay te gis nga Njaay ñu waxate encore Njaay forêt classée bu mbaaw melting pot la féticheur yaa ngi fa agresseur yaa ngi fa sàcc yi ñu ngi fa gis nga xam nga temps yi am na benn vidéo bu doon circulé benn waay boo xam même fee lañ ko dugalee forêt mbaa ba naka faa rendi xam nga li sam problème waaw nu mu kon si foofu forêt classée waaw luñ classé loo fa nit di wuti waaw léegi nag tamit. waa déet Ndiaye ñu ngi fay violé ay nit. Ndiaye mi daal waaw ma ne la ma dugg ñu génne ña fa ne. Ndiaye xaw ma doon bind ay. pare bu xeetu technique d'écriture yoo xam ne. bilay bilay kàll dama wax dëgg. <laughs> du ma wax dëgg. ancien rappeur de lay li ma la mën a wax daal mooy. Hmm. Hmm. nit yi nañu moytu. Ndiaye kaay ma boole la ak bi te taximaan lañ koy def de am na ci ay taximaan ñu koy def ay courtier wu sëriñ lañu dañuy yeb benn client commencé am naa benn paa boo xam nangam ak nangam dañ lay dóor ba pare toog fële soo joxee cent mille ñu lekk vingt mille ay courtier lañu sa ay ancien surga say ancien boy yi mais tey Ndiaye ci benn taximan. Mhm. xam naa ne géej ngaa jël taxi lool. man mi mais taxi ah Ndiaye géej ah, ngaa jël taxi dem dikki <laughs> tataay. jamono neexul Kalza. yow la Sotrac ngay jël. Kalza réew mi géej jël yooyu yëpp. réew mi réew mi photo. bi ay mbuusam la yor ci biir oto bi taxi bi. nee ay garabam la yor ak ay reenam. booy dugg si mu lay proposé garab yi. pour la bii defal nii bii dalay ubbi bii dalay def nii. waaw mu lu ko tudd moom néegu sëy yor ay mbuusam ci biir moom client daal lay xaar allez ah, moom boo koy ubbi. booy dugg rek muus yi di génn kay <laughs> bii pour guddi la bii da lay ubbi. di curaay seet ubbi pour nga am wërsëg. waaw di curaay seytaane la. <laughs> te moom la ba ba ngay yegg kay moom muus yi du teggeeku. te moom taximaan des fois sax mu ne la ma wàññil la course bi bu dee da jël ñaari muus te moom taximaan lii kay ko gis. <laughs> taximaan la. loolu léegi maa ko gis. mi <laughs> ngi ku ko taxaw naan la mi <laughs> ngi mel ko taxaw yore yore yore garabu bayre naan la kaay ma jaay la garabu bayre. ko taxi bi nag war ngaa war ngaa diwoo yi ndax bi gën a ubbi. bayre njaay kuy jaay bayre njaay c'est-à-dire kuy jaay bayre njaay <laughs> te du jaar. ñun réew ngi nii foofu la réew mi toll. ñun réew mi tàkk njaay suba. Hmm. dinaa la indi waa ji ñu yóbbu fële boole ko jabaru jënd ne ko dañ waa ji dañ ne ko dañ lay may jabaru rawaan nga takk ko. soo su xaay bu ñëwee nga tabaxal kër géej gi moom bu la soxlaa mooy ñëw waaj a dem fa guddi ñu ëffal kook ndaw si waaj a lonk premier lonk deuxième laal vitesse ci accident yi jëm seeg ndaw si <laughs> ko ci accident yi jëm allo président laay jóg seeg ndaw si àll bi jaay présidence de la République présidence kuréel ba Colobane ak Sane cotisation yore du fële sori victoire kori présidence de la République appelé le premier président du président de la République Amadou Amadou Sow Sera carte de carte plateau Cap Sera consulat 1902 sama lépp daa yàgg mu nekk la résidence officielle du gouverneur national afro-occidental le porcelain dafa jàll 1964 ba am ñu keroog dafa 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat ñu xaar ba am ci wala bëgg jot président ko kala war a doon fa lay wote salaamaaleykum salaamaaleykum sëñ bi ngeen def gërëm yàlla tey mooy tuuti teram joxal tur bi ak sant bi ak fi ngay oote El eh, Hadj Madoune Diop fii ci Bawol. El Hadj Madoune Diop waral sa woote bi. waaw sama woote mooy. Ah. Eh, man jaaykatu xar la jaaykatu xar nga yow. maanaam jula. jula. waaw. ah. Eh, léegi. dafa am lu ma daal loo xam ne dama ko bëgg a leeral. acca. président dégg ko jox ma ay ah, déet président moom da nga may wax li may li ngay wax bu ñëwee ma jottali ko. ah waaw. waaw baax na léegi. damaa for ci woowu béy. waaw. ñu ne yenn jaaykatu xar yi. waaw dañoo bëgg jël xar yi daal yokk ko seeral ko ba mu seer. ah nii kay tàmbali ko ndax maa ngi dégg nu naan ko amul juróom fukki wala juróom benn fukk ba moytul doo julli ren. loolu nag moo dul dëgg du yoon. lu tax foo ko teg. ndax fi ma ko teg mooy. Ah. daf ci am ñoo xam ni. dañuy xar euh, coog xar coogale xar yi jógee ay lingeer ci daara jëlo. bu bu nu karee coogal ga jënd ko. léegi bu nu ko jëndee. duy ko ci camion indi ko fu mel ne Ndakaaru. di di di ko jaay ay xar mun mun jënde woon fanweeri junni. ñu jaayee ko juróom-benn fukki junni mbaa juróom fukk. ah ba pare ne la xaru yar la. ba pare ne xaru yar la te xaru saawo bu bon la <laughs> dama ni bu kenn nax bu nu nax suñu bopp. <laughs> ah ndekete fépp a am i dóor rek. waay waay waay waay waay man kay léeg-léeg damay jaaxal léeg-léeg nga gis xar moo xam ne dañ naan la xarum yeew la. xarum yar la man maa koy yar xar mi def naa man lu ma un an def naa man ñaari at ñetti at ñeenti at. te xar mi boo ko gisee bu sëggee ba xatee yuriku waaw moom mooy xarum sol rek sol. ah doy na waar de. xam nga léeg-léeg da nga jënd xar guddi. nga xëy ba ca mm, jël xar ma ni du moom. waaw naan damaa jaawale. waaw njëkkatee yoo xar ma matul gën waa liibar dañ koo sol ba mu fee. ah doy na man de damay dem ba léeg-léeg damay defe ne chinois ñoo dugg ci njaayam xar ah man du ma ñu léegi nag. waaw li ma ciy wax mooy. Hmm. ñooñu di kar xa di dem ci dëkk yooyu di jënd xar mm-hmm. di leen yëpp ci camion di di di yokk prix bi. Mm-hmm. nañ ci seet jaboot gi te nañ bàyyi nit ñi def. waaw te seet ci yàlla liggéey day rafet. liggéey day rafet nañ ci seet yàlla. liggéey day sell. waaw. Mm-hmm. waaw waaye xam nga ni nekk nit bëgg nekke nekkee du du du lu jaaru du lu rafet. kay xar bi ko yokk borom kër yi bëgg a dee. rafetul de. kenn ku ne mënu mënu mënu coo jënd am am am xar dugal sa kër loolu dama. doy na wax man ma jaaxal ren nii boo xoolee fi mu ne dara li commencé na noo samp. commencé na ñoo samp kay. dara li commencé na noo samp te tabaski des na. waaw ma wallaay bu ma génnee gis dara li yegg yi rek sama yaram bi daw. ah doy na waar toor ka xar moo xam ne dégg nga maam yaa ko daan jëndee fanweer léegi bu ne boo amul juróom-benn fukk doo ko jënd. ëpp na. waaye borom kër yi ñun bay sonn nañ de. torop torop torop président nag nee ko. Hmm. loolu nañ ki taxawal. incha allahu waaw na dem te Daara Jolof wala Linguère wala dëkk yu mel noonu. Mm-hmm. taxaw ca bu benn nit waay ñëw di jënd xar yooyu di ko di ko yeb ci camion di ko yor. <laughs> baax baax na waaye nag nu faat bañ a fàtte ne. yàlla tamit kenn lu mu mënul. waaw dëgg la waaye fi tabaskee bay wéeru. Mm, bari na. boo fi tabaskee bay wéeru. weer na de ok leer. waaw waaw ñu ngi noonu moo tax nag président nañ ci dimbali waay. baax na jërëjëf président bu ñëwee dina ko jot incha allah. bi nga lancé taximaan yi daan ci kontaan ndax ñoom. xarum fukki junni xarum fukki junni ñaar rek la ñuy jënd ayca kon jeex na baax na. waaw a a mag. pour le moment. jërëjëf wax naa li ma bëgg a wax wax naa a